وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما شفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 هو الله الخالق البارق المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الفاتحة. kon ñen ñew taxaw ñen def li ngeen bëgg def ndax taay bi lañu ñu jéem a xoj ndax léegi timis jot. Allah do don do len Allah. كل رباعي هلا هلا هلا الله هلا هلا لا إله إلا الله هلا هلا كأوسين أسن هلا هلا نويت كل رباعي هلا هلا wala bëgg nañ la dootul dañ bilaay wala see ay yéenañu moom ala bëgg nañ leen dootul dañ bilaay wala see ay yéenañu moom ala ala allahumma salli ala sayyidina إلى الله لا مرحبا شيخ بابكر جوف الهدى إلى إلى الله لا إله إلا الله kii ak si léegi moom mooy Cheikh Babacar Diouf alxuda dëgg-dëgg njub lay wootee te ku jub nekk ca bay ca mbuur ñëpp xam ko am na Cheikh Ibrahima Niass boo xam ne daawatu rabbi an yaxamma kullal wara wa yaxbuduna sahi njubam gi rek la bëgg mu wër daj àddina bi ba ñëpp di gërëm njubam gi kon dëgg-dëgg Cheikh Bara Kothie Diouf bikum mu lay ñaan la yàlla gudd ak wër ak mboolem ñi nga àndal ñëpp ci barke Mawla Cheikh Ibrahima ba tey dañuy xoj temps rek Souleymane na ñëw ndax heure bi timis léegi yaay président bi kaay dara say gan. muqaddam yi campement yi fi teew yëpp di leen sant di gërëm daayira yi fi teew ak taalibe yi ñëpp ku fi teew di gërëm soxna ustaas yi ak waa koñ bi ak quartier bi di gërëm ñëpp ak ñu nekkoon ci waañ bi di gërëm sama gars yi nag ñi nga xamante ne tey programme bi ñoom ñoo ma jàppale jàpp si bu baax a baax a baax si seen doole ak si seen poos ba jotaay bi mën a mel ñu ngi leen di gërëm bu baax. di gërëm borom baas bi moom mi nga xamante ne tey baas bi daanaka li ñu ko joxee mën nañ ne may la waaw ndaxte lim koy luwee tey ak li ko jox boo ko xoolee daanaka motul dara dara dara ñu ngi gërëm bu baas bi bu baax a baax a baax di gërëm mbooloo bi képp ku fi teew di leen sant di leen gërëm di leen wax ba déwén incha allah wasalaam jërëjëf. tabaarakallaahu ñëw nañ alhamdulilah rabbil alamin incha allah li des rek mooy nit ñi dañoo xas seen ba mu set su ko defee ñu daal di taataan ak xol yu set la xol yu set incha allahu taala am na yaakaar incha allah te yàlla leen yàlla defal tawfiq ba li li ñu indil ñu sottal ñu ko buñ demee ñun ñu mën koo jëriñoo ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di leen ziara wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنا بني سنتي على جل جيانتك صلى الله عليه وسلم نوي نوي ما شاء الله حسن محمد الحسن محمد الحسين دي وقت الحمد لله رب العالمين di wax mbolo mi ñu jàppale ñu ci sant yàlla bobu di alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin comme ni ko xamé ci lislaam azar amul ndax baada audu billahi min asheytan irajim bismillahi irrahmani irrahim قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا بني جري دكار دينيو خمولي ورني دينين في فتك خيوال ودرني كون بني جري فتك كوفي بني دف قدون وخ الحمد لله رب العالمين بني يال بوري جي جتاي بي جي تاكوسان بي جي تاكوسان بي نخمني سيني غورغ الحاجة راي مساخو جدو في مغو جدو تنجي waye amul won dekk bu mu gëna fonk kàddu baa ngay xoox ndax waxoon dëkku ijaaba kon bu fekkee dañu ànd ak ñoo xam ne gën nañu ne lu ñu ñaan yàlla mu nangu ñu daje ci place boo xam ne yaakaar nañ ne loo fi ñaan yàlla mu nangu ñu tombeek ñi nga xam ne bokk nañ ci jataay boobu bu ñu def lu sant yàlla ñu ñëw ci ndigalu Mouhamadul Habib xam ne tey moom la yàlla dogal muy xalifa Alxaaji Rayma Sakho di xalifa maam Ilimaan Sakho yàlla dafa def mu tukki waaye ci suba ba léegi ci xew la ñu jógee ci takk mu ne lu mu guddi guddi demal ci Oustaz Diouf mu gis la. إله إلا الله si said, why la la la la la la si la la la la la la si la la si la la si la سيدي ما يسوس لا اله الا الله لا اله سيدي ما macha allah alhamdulilah jërëjëf zikar si neex na lool yàlla yàlla nee na saaltu rabbi an ya an ya umma hadiyi kullal wara wa yahmaduuna saayi waaye ko wax maa ngi ñaan yàlla sama njub gii yàlla daj àdduna bu boobaa sama liggéey bi yàlla nañ ko gërëm sant ko kon mooy mooy yàlla nañu ne jaajëfee Baye. jërëjëfee Baye ko wax moo tax ñu koy wax. Ah, sama liggéey bi yàlla na dem ba ñëpp naan jaajëfee Baye. kon egg na fu ñu wax rek war a waxee jaajëfee Baye moo tax ñu naan jaajëfee Baye. conférence bi tey bi nag sama seex bii di Alxasan Dieng moo koy def. مكوي دفتي لان خمال سبو من عرف نفسه عرف ربه كون لي تخ يالا ساك نيتا جيني ما غير ني خام وما خلق الجن والانس الا ليعبدوني شفت جانا وجهي سودا su ko defee Abdoulaye ibn Abbas mi nga xam ne mooy fóodee umma bi. tuub leen te tarbiya Cheikh Tidiane wàcc Soodaan laa ilaha laa xayartu Seydi Bara Ambaay xaami Soodaan ragal leen yàlla bay baan leen di fit ko xamoon fekki lam ci roy doon Seydi Bara Ambaay Abdullah ibn Abbas mu nga xam ne mooy fóodey umma bi nee na yàlla nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduuni liya'buduuni ay liya'rifuuni fa man lam yanal maarifata rahmaani fa umruhu daa madal azmaani nee na yàlla loolu mu wax ni sàkkewuma jinne ak nit lu ngir ñu jaamu ma mu ne li mu tekk mooy ngir ñu xam ma kon li tax yàlla sàkkuñu ku ne war naa xencoo def loola loolu na mooy di bàyyi ñas muy xam ne yàlla du ma xuus na ci sujet jàmbur <laughs> di sàqami lencam ndax wóolu nañ ko ci liñ ko jox te wolof njaay nee na ku wax feeñ kon moom du ma sax sori ci moom ndax lu ma wax ci moom rek wax ko sa mbokk waaye daal def na fi ay conférence defati ko fi dañuy comme ni ma ko waxee léegi rek bàyyi nas dawama waxta ak qariban faydatul xatmi hayyahu bi tafriqi axyaarin fa taxzaa min mawdii faydu baa ngi ñëw jege na lool raxas leen ndab yi te xaar ñekkal leen ci kon ñu taataan ñu ñëpp xam ne nag bu taw bi di sotti lu mu bëri bëri ndab yi dëpp du ñu luy de kon ñu ngi taataan xol yi imaam Xasan

الحمد لله العليم الخبير خلق الإنسان في أبدع التصوير وعمره بحسن التدبير والتفكير سبحانه نصب آياته على وحدانية هي دليلا رب المشارق رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واتخذ وكيلا نحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صفيه وخليله من خلقه وجليله كان صمته فكرا ونظره عبرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين yen mbokk julit ni ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci teewaay bi di wax ni tam bii ñu tànn thème la boo xam ne bii moom rek lañ yàlla digal tabaraka wa taala te mooy fexe xam ko xam yàlla moom moo tax ñu sàkkuñu yalla dafa wax nañ ko xam ci façon nak buñu mëna def ba xam ko rek nañ ko def Baye Niass yalla defal ko luñu wax ak tayyu yu moy ñu lemal ko yoon wi ndax bu njëkkaan bala ni ta xam yalla dina tak ndigam lii war ay geleem ay pass ay mbam war lu ngir wuti yalla pour xam ko di nga yëy ay xop yooyu ay ay xas ak lu ne ngir mën xam yàlla léegi nag yàlla defal bàyyi ña ci jamono ji ngay lekk ay ginaar di sol lu rafet di tàkk ci soxna yi ba egg ci yàlla loolu bàyyi ña rek mu ko am muy jamono ju neex ñoo xam ne kay bàyyi la tombel muy suñu chance bàyyi des nag ne boo nee ardafahu qatilan ardafahu qatilan mooy maxtuulan de waaw mooy maalum kon woowu bi kulli seen alim mooy woowu nañ koo xam ci lu ne jërëjëf imam Hassan tabarakallah gis ngeen fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin bu doon daanale léegi aaya alquran bi doon wax nit état bi muy jaar ci embryologie maanaam ni ñuy sàkke doomu aadama ci biir ndeyam ba ne summa kasoona al scientifique yi xam ngeen science ak alquran fu ñu juyoo rek alquran moo wax dëgg. dëgg la science fu mu nekk théorie scientifique mën naa wuuteeg alquran. waaye bu nekkee science pure vérité scientifique rek dana danaa sadaqallah science day wax sadaqallah al-azim parce que foofu alquran dana woon yàq bi mooy jiitu. yàpp bi topp ndax yàlla dafa ne su ma kasaw na la izaama laxman ginnaaw bu ñu sàkkee yàq bi. ñu muur koog yàgg dafa juyoo science foofu ba 1979 la scientifique yi soog a xam ndekete benn cartilage mooy yax bi ak ébauche cartilage mooy jiitu tendon yi soog ñoo jàpp ci comme science wax waxati foofu sadaqallaahu l-aziim waaye man li taxoon may wax mooy tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin am na ku ñuy wax Abdullah ibn Sarah bi aaya bi wàccee yàlla di yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam di wax doomu aadama di jaar. mu yéem lool mu yéem leen rek Abdoulaye ibn Abi Salih daal ne fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin te boobu yeneen bi Jibril lañ koy dicté muy wax te eggagul ci fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin Abdoulaye ibn Abi Salih jiitu ci yeneen bi yeneen bi daal koy xool ne ko moom loolu laa bëggoon a wax loolu moo topp ci aay ndeysaan gis nga Abdoulaye ibn la jaare faf murtad daal ne alquran jii daal man li ma wax ne la yàlla loolu la bëggoon a daal di murtad daw dellu màkk kon moom xam ngeen euh, science mun naa yóbbu nit ki ngërëm gën a dëgër waaye bu moytuwul mun naa yóbbu mu yàqal ko mu ngi mel ni brique bu ñu brique bii ñuy defar léegi maçon yi brique yi ñuy taal fi muy soog a pare nii boo ci sottee paanu ndox rek mu seey waaye bu fanaanee boo ci sottee paanu ndox mu gën a dëgër même bi même ndox mi boo ko sottee ci brique bu tooy bi brique ba seey. waaye bu xawee dëgër tuuti boo dañ ciy sot topp mu gën a dëgër loolu mooy science ku am base iman science day dëgëral sa liman imam Hassan junj na ci angle scientifique damay jël man bu gàtt rek ma nit ci fi nga xam ne ñun moom la ñu war a moom la xam miin ko te ñu bëri di ci xaw a juum yenn saa yi maanaam li lax dara di wax awwalu maa yajibu alal mukallafi tasxiiru imaanihi tasxiiru imaan mooy lan nga corriger sa imaan corriger laa wax de tasxiir mooy corriger ah tasxiiru imaan yi ñun ñëpp xam nañ al maqaamaat maqaamaatu diini xalaat kooku ñu ngi koy wax bis bu ne mooy al al islaamu comme ci xadiis Omar ibn Xattaab bi al islaamu al imaamu al ixsaan ñett yooyu la. waaye nag dañu xam ni dafa am islaamul islaam am imaanul islaam am ihsaanul islaam ma maqaam boobu rek am na loolu maqaam ba ci toppit am na islaamul iman am na imaanul iman am na ihsaanul iman boo ko jàllee dem ci ihsaan bi noonu la amee islaamul ihsaan am imaanul ihsaan am ihsaanul ihsaan te li may wax ne alquran la de dinaa ko wax aaya xadis bi ni mu ko indee aaya bi indee lan mooy maqaam bu njëkk bi ñettam yooyu ñu koy tudde al maraati maraatibul islam te ku ne war a góorgóorlu ba dox leen la suuf yente boo waxoon fa billahi jaawasul maratiba kullaha wallahi jàll naa maratib yëpp martaba bu njëkk bi bi ci lislaam mooy ak tawbatu tawba boo góorgóorloo ba jàng ko nga dem al mooy tuub istiqaama njub nga soog a yegg si ñetti martabay islam yi nga cee jaar yooyu boo góorgóorloo alquran ba mu daj amul yaa ayyuha alladina aslamu amul yaa ayyuha alladina ahsanu yàlla tax parce que al muslim mooy toll ci islam bi dafa toog comme nii ma toog yi jógagul al muhsinu mooy créé ci troisième étape ba ma dox moom te loolu la yàlla bëgg kooku yàlla waxul ak moom ma dox kii dafa toog góorgóorlu dara ki ñett ñetti ba jóg taxaw nag moom la yàlla di waxal naan ko doxal nag demal yaa ayyuha allazina amanu ifalu kaza yaa ayyuha allazina amanu la tafalu kaza ba bëggul ko toog bëggul ko taxaw rek yem ca kay dox la soxla kii dox moom yàlla pare na ci yow yaa ngay dox yaa ngi sa sayru dem moo tax muy wax ak mu'min yi rek ñoom rek lay wax leen def nangam def leen nangam dafa bëgg ñu départ dox comme ni mu wax seen bëri doxe moo ko nag ci daal ne xam naa ma ko waxee dina am ñu ne taay boobu ba sàngara la woon d' waaye xam ngeen prix mu nekk am na prix maarifa eh, wala la junaha ala alladina amanu wa amilu ma fi ma taimu ida ma taqaw wa amanu wa amilu salihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin ñetti maqaame ko li foofu ñetti maqaame ñu ngi noonu Allah ku ci nekk rek dafay ànd ak ragal ak def lu su ko ngay dox di dem kon ñetti maqaam yaa ngi diine mara bu nekkee si ñetti maraatib mooy mazaahir yi ñu bëri nag dañuy def erreur foofu di def jaawale ndax wax naa bu islam bi bu iman bi mooy as-sidqu al ixlaasu ak tumaanina as-sidqu mooy dëggu al ixlaasu mooy sellal su ko defee nga am ak fi Oustaz Assane tàmbali woon léegi. mooy allahumma aleykum awali wa daw ci sa deret bu dal ngay nekk boo jógee ci maqaam boobu na nga dugg ñetteel bi mooy al ihsaan ihsaan boobu moom it ñetti këram yi ñetti martaba yi mooy al muraqabatu mooy di xool yàlla ci lu nekk di ko ci gis di ko ci fugg boo jógee al mushahadatu mooy di ko gis waaye gis boo xam ne bi gis raqiq la waaye gis neen dafa mel ni benn euh, xijaab raqiq moo nekk sa diggante li nga war gis boo ca jógee nag dugg ci maarifa maarifa boobu nag boo ñëwee ci yonent sallallahu alayhi wa sallam na ko na ko na ko yonent bi waxoon Jibril na ko wax nga dëgg mooy an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka bàyyi na sa de soo war a am xijaab de aarif bi am na koo xam ne sama xarit aarab la bokk na tudd la tudd moom mu ngi nii aarab bi laay bi. xam si tubaab bu baax la. macha allah ma bëgg ni yàlla. macha allah ma nekk loxo nga ci. ñoom ñooñu Serigne Touba lii may wax ni jaar na ci de. Serigne Touba nee na abadtullah salaasata alaafi sana qabla irhaasi Adam jaamu naa yàlla ñetti junni am soog a sàkk Adam. jaamu naa yàlla ñetti junne ak soog a sàkk aadama ah kooku bàyyi bi moom fee xam ne taalibe bàyyi bu def maarif bu bu ko waxee mu firi la ko léegi. wallaay ndeysaan. taalibe bàyyi yëpp xam nañ ko bu mu teg kon bàyyi nee na danga naan an taabudallaha ka fa in lam takun taraaw kay. fa in lam takun boo fi nekkatul la boo fi newul mooy boo amee falaaw taraaw bismillah ci misaal boo nee an taabudallaaha kaannaka taraaw nga jaamu yàlla mel ni yaa gis te nga xam ne fa in lam takun boo fi nekkatul taraaw nga gis ko boo jëlee seet boo jëlee seetu jàkkaarloog moom nii koy gis bu sa bopp kiiraay baa ba ca ginnaaw buñ ko xoose peinture boobu ci ginnaaw buñ ko xoosee doo doon gis sa bopp sa bët day sar dem ca ginnaaw seetu fa la yàlla nekk wasalaamaaleykum. xam naa Zakir moom ñoom si gën a a branché si jërëjëf eh baay allah allah. Eh, baay allah. que ñaar ñëpp mooy xalifa yonent xalifa cheikhu Tidiane mooy Maulana cheikh al islam cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñi ngi ndokkeel bu baax suñuy sëriñ suñuy soppe muy imam Ousseynou ak imam Assane nga xam ne tey jii campement Ngexoox yëpp miin leen ñoom miin nañ kër gii miin nañ leen ñoom miin nañ kër gi waaye it kuy xarit di soppee Cheikh Ibrahima Diouf miin ngeen leen ñu nekk ay borom xam-xam ñu nekk ay muqaddam waaye muqaddam yoo xam ne imaam Assane Cissé fonkoon leen loolu imaam nag képp ku mu fonk rek mi ngi la fonkee si njub mi ngi la fonkee si xam-xam te ñoom yàlla defal na leen loolu. ñun dëgg-dëgg ñu nekk ay référence ci pays bi waaye ñun ñi nekkoon cees xam leen bu baax dëgg-dëgg jubbanti nañ ñun suñu toggaay yi si mbooleem jamono ndax ku ànd ak ñoom rek ay réer moom doo ko xalaat kon sëriñ bi yàlla yàlla wattu leen yal yàlla guddal fan wi loolu conférence bii ngeen fi def kii dafa jël côté scientifique Cheikh Abdallah Sall ñu ngi dalal moom it mu xadam Cheikh Ibrahima Sall moom dëgg-dëgg suñu soppe la léegi la yegg si jóge Dakar ñëw war a fekkee programme bi ñoo war a àndandoo dem Mbour si beneen programme ak tafsir sa tafsir Séñaan suñ fa jógee ñi nga war a jàllaat sali nga gis ay journée bi noonu rek la tëddee ñu ngi leen di dalal ñu ngi ndokkeel it président Jamiat Ansaarudine di suñu xarit Cheikh Mikaye Diaw moom it nekk fonctionnaire à la retraite ñii ngeen di gis ñii tamit ay fonctionnaire la ñu woon ba nga gis kalaama Mawlana Cheikh Ibrahim mu doy waar moom danay jël nga nekk intellectuel mu def la façon boo xam ne foo génnee dañuy yaakaar ne yow ab sëriñ daara la te loolu mooy kamaal yëpp doxee ñaari tànk yëpp amul benn boo xam ne dina dem wàcc moroom ñu ngi leen di dokkeel bu baax moom au cadre la cadre bu mag waaye nekk mu xadam nekk jëpp bu nekk ansaaru din taalibe Baay yi nekk département Thiès yëpp moo leen jiite waaye nag di ko doxal bu baax oustaz Pouy ñu ngi lay dalal imam Ka macha allah waaye suñu xarit suñu Baay bañ ko fekkee si tante bi it gën nañoo kontaan muy Cheikh Babacar Diouf borom Diop gi nga xam ne xam naa ne am na lu leen mosal te moom ay pikiir ndaw la rek da ko fay bàyyi rek bàyyi la ak bi dem yoonam ngeen ngi dem nag di xaatir dëgg-dëgg kontaan sëriñ bi raté nga conférence bu neex wallaahi ah ah man moom damaa yéemu damaa ne sëriñ bi moom tey anatomie nga indi di si doxal gars yi séeru man ba muy indi ay gesto man yooyu fàtte naa ko sax ndax lu ma jàng man ba léegi daa mel ne damaa dalaat observation SVT anatomie université noonu la daal la ko toppee anatomie ñu pare. Cheikh Ousseynou Momine Dieng moom indi maarifa bi moom daal ñu ko tàllalal waaye lu ma ci naqare rek mooy dafa gàtt ku ne daal daa cof rek bàyyi ñu ngi dalal monsieur le maire macha allah. waaw Pape Diouf macha allah moom it euh, dëgg-dëgg àndandoo sëriñ bi la bisimilah monsieur le lool kon nag kon nag ma jàllale. macha allah. قروب تغيب soosu nga xam ne jox na leen ko mu nekk këru gan di këru Baye Niass yëkkati alalam def ci loolu nekk na way woo xam ne dootul fay mukk kon nag ñu ngi leen ndokkeel bu baax waaye it dëgg-dëgg am na waaw moom moom kenn la si ñu kon bu ko defee fekk nga sëriñ si def nañ conférence ba nopp conférence bu technique conférence boo xam ne niveau bu macha allah loolu rek yéene nañ ko si ñoom. ñu ngi pare si jot si kàddu yi séddale nañ ko waaye ñu toll si point boo xam ne nag point bu am solo la ñu fonk ko muy addiya bu ñuy laaj di addiya bàyyi ndax sëriñ si suñu joxee addiya mooy seen xam-xam am na beneen addiya boo xam ne ñu koy laajal ngir ki nga xam ne mooy borom jotaay bi waaye mu nekk addiya bàyyi loolu nag ñu ngi koy laajee si jamono boo xam ne jamono bu am solo la ndax ñu ngi jëm siyaara bi dina ziara Medina Baye àjjuma bii di ñëw la muy vendredi le 13 boo ko defee nag taalibe yi la ñuy war a yóbbal sëriñ mooy loo xam ne war na jógee si seen poos man nag sama at yaa ngi nii bu ko defee Amadou yow mën ngaa def jigéen ñi nag ñaare ñoo si daan mën góor ñi nag bëgguma bëgg naa affaire bi changé. ndax àddina bi mi ngi feeñee ku si ne sax mbëggeel foog mu toll rek noonu ngay defee ñi ngi laaj àddina Baye Niass képp ko ko joxe fii ñi lay garanti sa mboolem aajo yàlla dina ko fay. ndax yoon salaahu salaam nee woon na soo leen rombatee dëru àjjana yi da ngeen si wittulu ñu laaj ko yaa Rasulallah lan mooy dëru àjjana yi mu ne leen booy bara sekar bii nga xam ne ñu ko fi yëkkati xam-xam yi fi rot ñu fi ñëw suñu wétuloo yi nañu am lu yóbbal yóbbal boobu nag mooy nañ génne ci seen poos loo xam ne jaral na leen addiya bàyyi ku ko jox addiya jox boo ko yoon salaam salaam te sikk suñu mbokk murit moom ñoo nak daanu ñëpp ñoom kenn damagu leen macha allah sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla barkeel ñu ne mu ngi delloo mbaatu ca daala moom la ñuy jox adiya bi ci dëggalu Cheikh Abdourahmane mu jox ko sang mu ne waaye balaa olof wax na ne ñu ne leen nag bi yaa ko moom. buñ la waxee ne nag bi yaa moom. loolu su loolu su la doyulee. boo rendee nag yow. boo rendee nag bi yow. ak sa jaasi. ak sa jaasi. nga feesal ko ma bopp. nga feesal ko sa daggati ko. nga daggati ko. nga toog ci der bi. nga toog ci der bi. nga toggal ko nga toggal ko sa bopp. nga lekk nga lekk yàpp bi. nga ko. nga seeñu bi. nga sangoo der bi. nga taxaw fa nag ba nekkoon. Daladay. buñ ma tuddee nii. buñ ko tuddee nii. ñaari sang yu baax ñaari sang yu baax yii ñoo tax. ak seen àndandoo. ak seen i àndandoo. mu ne bu tuddee waa Thiès. tudd na ñëpp. mu ne Cheikh Abdoulaye Sall suñu xarit. suñu sëriñ. Cheikh Abdourahmane Tine. Cheikh Babacar Diouf. Al Huda. suñu xarit suñu sëriñ. kon Cheikh Babacar Diouf ba Imam Assane Thierno Lamine Dramé Cheikh Ibrahima Ndiaye ak mu xadamu waa campement ñëpp mu ne ak Zakir yi mu ne Paateek Mika mu ne ci compte Serigne bi lañ bokk Pape Dione moom dëkk ndoom bu mu takkandoon la ñu ñoom ñëpp. ci turu Pape Dione lay waa koñ bi nee na bàyyiwul kenn waaye doole jën imaamu raatibu dëkk bi imaam Mouhamad Sarr yónnee na fi rakkam imaam association imaam yëpp Cheikh Hamdi Kunta rakkam di buun ak waajuram bu jigéen. rakkam ak waajuram bu jigéen. ñëw na fii fii. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. gërëm naa na leen sant na leen. waa waañ bi. waa waañ bi. am na ci mbooloo mi ku ñuy wax ci mbooloo mi Souleymane Badji. ak Amadou Di Diaz. ak Amadou Di Diaz. ñii. ñii. bu lii nii. mu ne seen loxo mu ci bu baax a baax. Baye Ndiasse mu ne Baye Ndiasse mu Serigne Touba ñu ngi koy gërëm di ko sant ba demee di ko seeti def na ko ustaas yàgg naa laa xam maa la dindal gasoil yow mi nga xam yaa ma sax du ma yem dinaa ñëw nee mu ngi ñëw na mu ne njooru sëñ Touba la njabootu Serigne Touba la. Baye se fekk na sëriñ bi ci suba. mu ne fekk di sëriñ ci suba. muy waxtaan di wax ne. muy waxtaan ne. sëriñ Tuubaa mu mu ne. kullu wirdin. kullu wirdin. yuuridul. yuuridul. من لي حضرة الله ولا يهدا سواء انتما الى الجيلاني او انتما لاحمد تيجاني اذ كلهم خطأت على صوابي سسرينا كبك خمي الله جيل يون عبد الخالد جيلاني ورشي احمد تيجاني parce que moom mi jaar ci moom Sëñ Tuubaa nee na jaar na ci ba yàlla jox ko maaxuus minallaahi ma war a moo tax jaase gërëm nañu la ak sa délégation moo ne monsieur conseil di suñu conseil di suñu loxo ndeyjoor di loxo ndeyjoor fii fii ci ndigalu ci ndigalu monsieur bu baax bi toog teewaloon nañ la teewal nañ la moom ak Moukhadam Mbaye Diouf ak Amadou Dias boobu ñëwul ko waa Sali mu ne ñaari yàlla yiy toog nee baal ko àq ay soppeem lañ ay wóor réew lañ ay muxaddimu Cheikh Ibrahima lañ mu ne Cheikh Ismaïla Ka mii toog mu ne di xaatu sang toog bi programme di ñëw daf kaa wax ne ko Ibrahima mu ne ko la béy mu ne ko foo dem ci loo nekk danañ ànd dem nañu Pout dem nañu Géero dem nañu Sinja fu nekk ngir yëg les programme bi mu wuutu nag ci loolu ñaari sang yu tedd yi ndax ay wëlër lañ ay gorom lañ yére bii mu sol nee na moom sax du sol yére daanaka dañ koy jox rek muy denc mën a tey programme bii am na ku ñëw yére. Aline mbokk taalibe taalibe sëriñ bi la. mais Aline taalibe sëriñ bi la. moo ñëw ndiroole xale yi. mu ne moom moo ñëw ndiroole xale yi. ñëw na yére indil ma. ñëw na yére indil ko. ma ne ko sëriñ bu solo rek solo naa. ma ne ko bu sëriñ bi solo rek solo naa. lii mu sol nii. ak rafet. ak taaru. ak a jekk. da nga naaj eh? seet. waaw ndax bàyyi moo naaj. mu ne bu jeexalee nag ci monsieur le maire. nee na sëriñ bi. mën a waaxu xam yéen moo ko gën gis nee na kuy sàkkami te sexuloo dara ñaari rek moo ñaari moo yaa ngi mokkal sa làmmiñ yaa ngi yuut sa bopp mooy naxuloo kenn yow nag bu ngeen ko naxoon musiba am moo tax mu wax affaire nag bi lim ci bëgg wax mooy su ko waxoon tey minuit fii la ñuy fekk waaye seen xarit mii di monsieur le mu ne léegi sax ñu leen di ndiróole léeg-léeg nit ne ko. ñëw naa sa bureau. ñëw naa sa bureau. mënuma laa gis. mënuma laa gis. Eh, eh, eh, ñu naan la. ñu naan la. jotuma ci jot ci woo naa la. woo mu ne ma maa ngi ko nga nooy def. bu lëndee. ñëw mu ne bëri ay gan yoo xam ne. ay garab yoo xam ne. ay garab moom moo leen fa yebal. waaye yàlla it du juum. waaye Dakar wax fan yii la xew. ba mu déggee sa kàddu daa foogoon ne monsieur le maire la xanaa ngeen mu ne waaw ñoo bokk Diouf bokk Adama bokk Ngeexo muy magam di bàyyi ci moom di sa di xaritam nee na yàqu ci daara Euh, mu ne bu ko séeréer mu koy wax. waaleykum salaam wa rahmatulah. nee na imaam Sakho ñëw na Ilimane. kii mooy El Xaasum Sakho. di doomu Alaaji Ibrahima Sakho. di bokk musulmeer mi di bokk musulmeer mi toog. mu nekk jarbaatu baayam. mu di ku baax koo xam ne. xaritu ñëpp mboolem ku am teraanga. mboolem ku Xaasim. cëral na la. fonk na la. jàppale gunge na la. mu ngi wax ci juma El Hadji paase. daa bëgg lépp lu muy nañ ko enregistré ndax yàlla la làmmiñ yàlla lay waxee léppam la ndax sa muy baax yi toog wax na ko alaaji xaasu bi dugg ngeen a taalibe yi wetti na leen wetti na leen dimbale leen li wax ne yàlla la xam na ne kullu hizbin bimaa ladayhim farihuun maam El Hadji Malick Sy sëriñam di sëriñ waajuram di sëriñ maamam di sama sëriñ man waaw di sama sëriñ man di sama sëriñ wa innahu is aradallahu is aradallahu nasatana nasatana abana abana min nuurihi nuura nabil alamin nee loolu mooy lan. ba yàlla nekkee azal. mu ne mooy destin. dara amagul. dara mu nekk moom rek. mu toog ba yàgg. mu ne man daal. am li mu concentré mu ne sëriñ bi mu concentré wu. maam hmm? maam El Hadj Malick ne. am na ne fàcc ci

mu ne moom mooy buntu bi suñu maam El Hadj Malick Sy loolu la jàngale sang bi bu accès mu dëkk a présenté mu sawar ci wax lool monsieur le maire mii taalibe baay yi gërëmoon nañu la ñu ngi lay dollee di la gërëmaat may nga leen ñaari kër gratuitement seen daayira bii ci kër gi nekk ci kër gi. palaat yi toggee añ tey. yaa leen ko jox. baas bu rafet kaar. baas am na ku ñu wax Dias Amru mu ngi ci mbooloo bi ba ko daf ne ko ah man de ah, xat bëri naa ay programme surchargé naa waaye Cheikh Ousseynou ak Cheikh Hassan Imam Hassan Cissé. mënuma leen a tàntam te programme bi maa waxoon ne daawaatu jéeg avant Covid bi bu ñëwee lépp maa koy gàddu mu jël loo xam ne fees na enveloppe bi teg ko ci loxo Abdou Diaz ak Souleymane loolu moo defar programme bi mu ngi tàmbalee nag ci tànt bi rafet na. jekk na monsieur le maire ñaanal ndax sang yaa ngi nii ñamu la ñaanal ndax li yaay alal xaasu agsi na waaye ñeme na abbu seen i làmmeñ ak làmmeñu mbooloo mi mu ñaanal la. guddi fan ak wér say ambition li bëgg yaa ko xam yokk ba yëg ko teraanga bi ñu defal nag ñun taalibe Baay yi ko ko murit defal ko xaadir defal ko ko tiijaan defal ko laayeen defal ko canaba canabi ko chrétien defal ko pël yi defal ko naar yi defal ko séeréer yi mais li mu wax nag làmmatugul ko daf koo xam ndax daf lay si boo ñëwee ci mbooloo moom orateur la dina wax jox la kàddu fexe nga wax ca loo wax dëgg la imaamu raatu dëkk nga jël ne ko doxal soxla yëpp sëñ Modou Lo sëñ jaar ak ñoom ci imaam Diop bisu di jumaa Zawe El Hadji Ibou Sakho. ñu xam ne foofu ngay jullee. El Hadji Ibou Sakho sax moo la fal. ndax daa am bés ngay julli ci foofu. mu ne doxal di julli. doxal boobu nag. ba tey yaa ngay dox. di nga dox rek amiin su ko defee. programme bi mu ngi toll woon ci joxe addiya Baay bi ci des Cheikh Ibrahima Ndiaye mu wax ci turu mu baye ci dekk bi ak taalibe yi waaye Alaaji khasim ni ngi lay xamal ne lii yaaka ya mom lu mom am yaaka mom sama sëriñ bi ma jangal alquran ni ñu àndee mom ak yow non la doon sa wajur El Hadj Ibou mu jangal ko yar ko jox ko wirdu di jaajal ko ngeen di ànd ba mu dem aljana nga jël boobu dëjëm moom yéen ñaar yéen a àndoon nga dem nuyu ñaari waajuram jox kenn ku ci nekk 5000 nga ne ma ñii dee taalibe Serigne mu hmm? ne na néeg bi bes na dell ak i poto Serigne Babacar. ma ne ko sëriñ bi sumay waajur ànd nañ ak sëriñ Babacar juróom fukki at ku mun ci waawoon am na daayira bu ñuy wax naan daayiratul kurama nee na waajuram moom moo nekkoon président bi juróom fukki at moom muy doog a ñëw jamono sëriñ Mam Soor si borom daara nee na bëri na toolam ba taay. nee na laal bii ba taay. daf ko ñaanal ba taay. waaye El Hadj Ibou Sakho li ko booleeg moom nekkul li mu tuddee Ibrahima rek waaye El Hadj xam na ko moom mii xam na ko. njaabu gëlëm nag xajul ci waañ rawatina nag waañ wa gàtt gëlëm ba njool tasawara kon li def mooy Cheikh Lamine Dramé ñu ngi jaay nga jëg jox addee bi sang yi buñ noppee Cheikh Ibrahima Ndiaye wax ci turu muxaddam yi El Hadji Xaasim Sakho ñu lu wax nu mu waxee saa ak mu toll ak mu yem baax na doomam rakkam jarbaatam setam jib saaxo ñoo fi léegi jóge fi léegi dem dayoon na waaye boo solee sa dàll ngir yëg ak safoo ak faale ak toppatoo na nga nemmeeku suñu si kanamu sëriñ si dana daan na kontaan ci programme yëpp waaye bii moo fi dàkk allahuma salli ala Baye Niass liggéeyal yàlla liggéeyal Baye Niass njëriñ la ca nekk dafa daanu tension bu métti tension boo xam ne ne wax dootul dox mu fekk ko ci këram mu ne ko waxuma sa secret ndax li la nii ci musa dal yaa ngi yor beeke wala da ngaa wala samay côté yàqu na mu ko Baye Niass mu xam na ne liggéey yàlla bénéfice la ndax feebar boobu ko yàlla moo ko ci aar loolu rek nga ciy wax di loxo di sant di gërëm bu suñoon nag lim defoon daaw lay def toog ak yow ba it di yegg mu doog a dem waaye baat bi ak coono bi gis nga kanam gi foofu la yem salaamaaleykum wa rahmatulah. encore le 7 janvier bon conférence mu dox si mesures yoo xam ñëpp mën nañu koo jëriñoo si kanam bu nekk. ñaari ndir daal di ko seq Ousseynou ak Hassan bu ma xoolee Ousseynou damay gis sept ma xam jàkkaarloo moom ba su ndeyjoor ba du cam ila àq yi.

fukki weer ak ñaar ñoo fiy dox bon su ma continuer mu continuer waaye ñaari awaalim ñoo teew tey kii bu su la kii Hasan la awaalim ñaar la Ousseynou ak ñoo def conférence bi def bu riche bu mag bu riche moo tax ma ne conférence bi yegg na fu ñu ko doon xaaree wala dépassé na foofu bëri na fu ñu toog jotaay bu yaatu te jotaay bu xam-xam bu yaatu bi nga xam ne ñaari seex yi waxee nañ yàlla dafa bëgg cheikh yonent bi salaatu dafa bëgg cheikh dama di yonent mu ne mu ne arbaaw mu ne yàlla ñeenti kàddu yi mu gën a bëgg ñeenti la mu ne subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kon ñaar yàlla subhanallahi wa la ilaha illallah ñaar wallahu akbar boo seetlu ñeenti la subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ñaar la yonent mu ne ñeenti yi la yàlla gën a bëgg ci turam yi wala e duura ko ɓe ayi ɓe ayi baɗ ayi hen nabadata ɓeɗe fof siddo lor won moo tax lor leen ñu andi ngeen xam-xam ñu jëri ayadakum allahu nadarakum fi zawahiri wal bawatini ene yàlla gërëm seen dundu dëgëral leen si laay sibaati mu tëjee si gàtt bu Ustaz Ibrahima Diouf dama ne dëkk bii di nga toox suñ ko fayoon lim leblanteeg ñun tant bi dafa xeeb si tant moom Ustaz Ibrahima bi leen si la ilaha illa amul ku mu amul kenn si doomu aadama boo xam ne oustaz Ibrahima joxul la cër te xew mu bàyyi fa temps lépp ku mën a doon amat yaa xam xale nga yaa xam man te bëri na ku mu raw ñun ñii doom ak yéen moo ñu mën foofu bëri na ku mu téye seen concentrat fekk toll na ko fii ci xam-xamu zaahir ak xam-xamu baatin kenn yàlla bu jël sa fan ngay wér yàlla barke sa zaahir ak sa baatin ñun moom li wax rek mooy dañuy jiim laa roy ويقول لك يا منان لا يسكن الليل على الجبال وعلى أسجار في التحمى من جزء يا رجل تري دم ميسي كو من دكام دخ أكتوجي أكربي ويا بس والله نفسي سوف رنجي جل دخ مرتبة علم وغنى وغزب القاتل وحركة القاتل فيه نرسل والجبر والفقر والجبر القاتل وحركة فيه نرسل إلى بعيسى كم كم تسوف لين بيماس نادا يجي سوف لين بيماس تري كم تسوف لين بيماس ويا ريني ماسك يانسي كو الجهلو riir ci kaw lañ koy maas alfaqru ñàkk ci kaw lañ koy maas waaye alal ak kibru alal alfaqru wal jaddu wal jëf yëpp ci kaw lañ koy maas beekoor ku ko bëgg si ñun fii amul kenn ku ko bëgg moo tax kawe kawe bi bëriwul moo tax nga tànn suufee yal na yàlla eh, wax gàtt na waaye yaatu nekk waaye la fadda foofu wala chalat daaka Eh, yàlla ci ay dogalam sang yi bi fi jëkkee ñëw dama leen dalal kër Ibou Diouf nga teew ci keroog nga jël tatagal leen bi ngeen taalibe bàyyi ne campement ngi ko nañ jox kenn wax Daawda Jàlla moo ngi fi woon yàlla ci ay dogalam mu dem Baye Sadio mu ngi fi woon mu dem Cheikh Ibrahima Cheikh Ismaïla Ka kubbe woon na ci teranga ak wul na digganteem ak serigne ci Cheikh faylo gi ni mo xadam la waye gëm na ne suñu ko joxon jox la moom yow yaay wax ale mo ngën di lisikar kon lo li mu tekki moy sa ci rek jëla jëlaat baax bi ngay wax ci man nak bu dé amna ni mo koy message Cheikh ibrahim mu may nan xol ma ibrahim Cheikh ibrahim so soo joxoon ben baara ne ko yaa baax du benn nga ko joxoon ñetti fu mu jëm ci yow non nga def li nga wax yëpp daan ne ci yow moo tax nga wax nee na ndab lu ne la fa nekk rek lay seet lu baax li nga ma yéene wax ma ko sa barke Serigne si yàlla ma dal dal mbooloo mi yàlla wattu la aar la barke Cheikh Ibrahim barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf kontaan nañu bu baax ci tur mu yi wax bi mat na set dara desul dama waxoon boo daanelee sunu mbokk mu baax mii di sunu xarit di sunu Serigne di sunu genn wàll di kan di alxaaji Xaasim Saaxo mos naa ko wax ci jumaa ja fële ne ko li ma jaaxal mooy yàlla fa yonent alama sallallahu alayhi wasallam ittabi millata abika ibrahim yow nga tudd xaasim te xaasim mooy muhammad kon soo ma toppee dama defal teraanga dama defal yiw weer wu ne weer wu ne mu jox ma yére ne ma li ngay def ci jumaa ji ñun doomu alaji bu saako yëpp moo ñu waroon waaye kenn mënu laa fay dina may teral ci xam-xam dina may jox lu mu xam dina may jox lu mu am loolu su ma ko nettali sama këraw sàng yu baax yi toog ndax bàyyi sax ñu wax ne al ihsaanu laa ujaazihi bi nisyaani ku nit daal waroo fekk teraanga nga suul ko te waa maa bi ne matara bi nag lu mu gàtt gàtt fa xaddis soo defee loolu ma def ci cadre boobu laa ko waxee présenté ko samay sëriñ it xamal leen moom may jàppale ci li mu xam ak lim am na nit na bu la jàppalee ci lim mos ak li mu mucc sot yéen na àdduna mos a mucc rek la soo defee sëriñ si sew seen si Xasan ma jox alaaji Xaasim euh, mu wax ni muy wax ginnaaw bi ñu koy ñaanalee ginnaaw bi ñu ko santee gërëm ko xamal ko ne fii sa la kenn ci sama soxna yi am na ci koo xam ne kii rakkam la mooy ki nga takk woon géeréem loolu mbaa na waa rakkam na mbokk ko sori waaye na ko bu jëlee kàddu ñëpp dinañ kontaan kon nag incha allah ci ndigalu sëriñ rek ma ñu ko kàddu ginnaaw ma ko gërëmee te lu ma ko gërëm rek sant ko xeet naa ko ndax xàngale ba la ñu nekk tey dafa nekk bi imaam yëpp ak borom yi xam-xam yëpp teral na leen ci xam-xamam teral na leen ci am-amam seexluwu leen beruwu leen soriwu leen jege na leen te man tawaada ànd ak ku bañ ku nangu rafaahu la wàcce na boppam ànd naag ñoom ànd bu rafet te yàlla tax. fonk na taalibe yi jaxasoo na ñoom loo ko wax mu bàyyi ay soxlaa ñoom yëg naa tey na xat na lool dëkk benn ay programme lool waaye ba ma ko wat ma ne bu moom may ma ngaan ma ne ko ah na la muy jàng alxuraan di sikar salaatul faatihi wax ma ñëw rek ma ne ko ñëwal moo tax nag mu ngi ni teew xam naa ne kàddu gi xaw naa gudd sax maa ngi jégalu sang waaye incha allah Ibrahima kontaan nañ waaye duñ wax tur mu xadam yëpp campement bu xale benn lañ léeg-léeg ñu dem kër Baye Baye Daouda léeg-léeg kër Baye Saliou ba Ismaïla bi fi ñu barki dem léeg-léeg ñu ànd ak moom loolu li mu tekki mooy taalib bàyyi na si dëkk bi yëpp alaji xaase ne leen wax ci lu baax mos naa bés bu jógee ma ci jumaa ma pare daje mu àgg ma yow xaw ma say sëriñ waaye ko am cër nga ci bàyyi ma ne ko ah mun ma kurus bii yaxu gileem la mi dina laa ko jëlee Dóor Baye dafa nekk gis naa ko doomu kuréel si Cheikh Ndiaye jëloon Fass gis naa ko gis naa maanaam wala sori ak yeneen ak yeneen loolu ma kii dégg nga bu dul yoree ci kër yi la bokk. allahumma ala Baye Cheikh Ahmed Khassim wala monsieur. di siyaare ñëpp di baalu xàq ala kulli xaal di dalal sunu kilifa yu di njabootu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñun ñu nekk ca biir di ndokkeel imaam Diouf bu baax a baax ci xew-xew bu mag bii nga xam ne sàng la boo xam ne bàyyi radiyallahu anhu da ko sànni woon ci kàpp Maga ko Baye radiyallahu anhu set naa ne ñëw na campement nga boobu yo waye set seet suñu fi won kudul dul rakab taalibeem xaritam ibrahim sa bàyyi jóge na kawlax di dem Dakar jóge na Dakar di dem kawlax defaat ne yoonu yoonu yooyu ay yoonu yoon yàlla suturaal mi itam ba lépp bu ma ko fekkwul am naa lenn nag lu ma ca fekk taxaw ne ci funt bi nga ma xaasi moom bàyyi radiyallaahu anhu ma dama ñëw mu ne ma am sa pàpp mu ne ko dem na léegi Dakar ne kon ma fekki ko jóge na ma taxaw ci buntu Zawiya Alxaaji Ibrahim Sakho bii war dem te ngi taxaw ci route nationale bi benn paar paaru oto wala lu ko nuru na tey sama kanam ma gestu gisuma dara te loolu bëccëg loolu loolu 11 ci bëccëg. ma taxaw tuuti faar ba na waaj ay si sama kanam gën a foor ma gestu gisu ba dara ma xool buuru mbuur gestu rek gis ba sama wet dëgg ta boo ma tolloo ci singi wala ca jam ñaaje doo commencé dóor faar yi mu ñëw naa man sa papa ma ne mu ci biir ma téye loxo bi ànd ak moom ci biir diiru dundu alxaaji ibrahima Sakho radiyallahu anhu gàmmu Médine bu jotee beñe yu bari yooyu moo ko daan joxe yëpp alxaaji bu Sakho moo ko daan togg la fii yéen ka sama mag Babacar Sakho mu yóbbu ko Médine bu dee mu ne ko bul fa jóg te bàyyi yeewi la Mbaye Sakho nee na ñëw nuyu nuyu lu bàyyi ko defee bàyyi xool ma ne ma sa bàyyi nee na bul fi jóg te yeewuma la yeeweeguma la te boobu maa ngi bëgg mu yeewi ma daan naa ko def un bàyyi soo ko bàyyi bàyyi ñi eh, gestu yu mu daan gestu kamp maa ngi bu fi masaan dugg bay dellu man gëm naa ne lii ci la bokk gestu lii ci la bokk njabootam bu teddi gi ñëw fekk si la yow xale yu baax yi nga xam ne bëgg nañ yiw fekk si yiw wii wallahi loolu ci gestu baay la bokk waaye nag si Ibrahim wax léegi ci yow mooy dëkk sàppa may li kon mën nañu la fay yéen bay nga say soxla yendul nit ba tey xew xew bi xew ci biir dëkk bi yaa cay man borom da nga gën a xër te da jël sa alal def ca jël micro di wax ci wàllu diine te ku fa jógee am lu mu yóbbaale ku fa jógee nag am lu mu yóbbaale du day yéem yow day yéem bàyyi nekkata taaliba bàyyi bii nii la mel bari na ñu dugg léegi ci tariqa bi bu ñu nee ñaseen nag bu kenn wax ne tariqa la ñaseen bu tariqa ñaseen tiijaan lañu Tiwaawan Tiijaan lañu kene ba Tiijaan lañu ñoom ñëpp Cheikh Tiijaan lañu yaakaar waaye léeg ma dégg ci rajo yi ñu naan invité nañ Tiijaan yi invité nañ ñaseen man léegi moom xamu leen li ñaseen du tarixa dafa dig ci biir Tiijaan Cheikh Tiijaan yëkkati jëm moom solal ka bàyyi yëkkati jëm moom solal ka bàyyi damay wax ni làmbaatoo ma ko alhamdulilah bu ko defee ñu ndokkeel la bu baax di la ñaanal yàlla di ñaanal nag ci sëriñ yu baax yi toog fekkoo ma waxtaan wi ndax waxoon naa ne ñàkk naa jot te loolu damay ñaan muy yokk ndox ndonay mag ñi xam nga dëkk buy wax gore jóge ba ñëw neexut dem fa neexut mbooloo ma fa bàyyi imaamu raatib ba taalibu góor gi la doom ja moo xew la xewal mu rëy député yaa ko ak ministère yeeg sëriñ su bari ma ne ko du ma toog de xew-xew yi imam Diouf ba mu ñëw ba ren ndax ma su ñëw ma ñëw ba bàññi dëkk ba ji da doon ma ko ma jaar ca loolu continuer ñëw ci ñaseen ñëw ci wàccare ba fii fekk seen sëriñ ñëwagul moo wàññeeku ñëw fii te moo ñigee ko kooku laaj delluwaay diine ji diine ji nag tabaarakallahu ni Pape Ibou Sakho radiyallahu anhu daan islam bi doole te yokk tariqa bi bayre moom la daan mas naa leen nettali benn mbir ma wax ko rek te alité incha loolu dafa am nu muy def ci man ci diggante Pape Ibou Sakho radiyallahu anhu ak Cheikh Ibrahim ma wax laaj Ibrahima Sakho dafa dem Makkatal Mukarram wax naa la ko mosul dem Makka nag ba lekk fa mbaa mu naan fa donte un mois la fay am sam-sam bi si lay lekk si lay naan mooy lekkam mooy ndoxam sam-sam wax naa de démb ne de dund na quatre-vingt-deux ans kenn mosu ko pikiir kenn mosu ko opéré mosu naan lu set. masul lekk ginaar masul lekk yàpp xonq ngir moytu ko yàlla suturaal na ko ci loolu tabarakallahu xaaj ibrahim radiallahu anhu dem makkatal mukarram toog janoo ak kaabatullah nee na am ko ko sëpp ne ka alxaaji ibrahim nee na ma ne la béyk gestu mujjee ma ne ma boo demee nga ne bàyyi ñas nangam ak nangam ak nangam yooya xam naa ko am na benn bu ma la ci mosol mais ñaar ñi dama ko denc papa alxaji ibrahima saaxo nekk ma wax lan bàyyi mu nekk nekk nangam ak nangam waaye bu soxla ne dama ne wul bit xoolaat kooku mu doon wax ak man mu réer ma gisuma ko nee na ma sëggaat sama kurus mu déedee suwaat ne ma man maay yaayu Cheikh Ibrahim man maay maam asu jànq ne mes waaye Ibrahima Sakho nee na ma jaaxle waaye nag ma continuer sama kurus am ñetti fan màkkatal mu karam ñëw Médine jël avion na jëm Dakar ba ma wàccee Dakar laa gëstu gis Baye Niass moo taxaw sama wet ma daal di koy jox loxo accolade naka bàyyi foo jóge mu ne Kano mu ne ma xaaj Ibrahima Sakho foo jóge ma ne ko Makkatal Mukarram dama demoon umra ñu daal di ñaanalante Pape Ibou Sakho waxul dara bàyyi ngir ormal bàyyi ñëw dugg ci otoom départ bàyyi dugg saako jël otoom topp a bàyyi ñu romba caaray romba mbaaw romba tëngi romba jam ñaajo romba campement romba guur bu topp bàyyi rek bàyyi amoon na habitude buy tukki li muy mujjee def ca dëkk ba mooy ñaari rakk yi muy tàggoo sabiye ba bàyyi su demee ba ñëw ak fu mu mën dem ba dugg ci këram dugg ci biir sabiye bi def fa ay rakk soog a dem ci kër xaj Ibrahima Sakho la daan def moom dañu tàmm ci moom mu topp bàyyi ba bàyyi ak si dugg biir sabiye bi def tahiyatul masjid ne assalaamu aleykum gis Pape Ibou Sakho cee doon mu nekk Ibrahima da ngay tukki Pape Ibou Sakho ne ko déedéet ñas mu ne ko lu mu ne ko dama amoon su yóbbante wuy jubu jigéen mu wax ma ka ca màkk te yóbbante boobu du ma ko wexe Dakar. ci sa sawi bi laa la koy waxe ormal la moo tax wàccu ma tëngeeg samay bagage ngi ni ci bi oto bi bàyyi daal di wëlbatu bu janoo moom naka loolu lan la mu nekk gis naa maam astu jànq rahmatullah alayha nee na naa la wax ne nga def nangam nangam nangam bàyyi na pat ba yàgg ne ko waaw ki nga gis noo ko mën a misaale Pape Ibou Sakho nekk ki ma gis am na fi benn cicatrice bàyyi daal di ko song ne ko wallaahi maam asu jàkka nga gis loolu mu ko waxoon yóbbante bu jóge barsàq di jëm ci bàyyi ñu jaaree la ci col xaw alxaaj Ibrahima loolu ku ci jàngoon na ñoom ñaar am lu leen liyee xamoo ne xew seen si ñu leen di nuyu bu baax di leen jàngal yàlla bu baax man 1995 laa commencé taxaw nii di gàmm boobu Sénégal ñi fi gàmm ma mag leen néew na ñu mag ma néew na maa ci gënu tuuti 1995 la jëkk di jiitu juma ba ajuma ajuma bii passé sama dafa ma a dugal ca loola ndax maa ngi fekk ay mag yoo xam ne yoo xam nga leen mm-hmm. du dëgg waaye Hadj Ibrahima Sakho radiyallahu anhu Hong Kong bay lol daan ñu ñëw ci kër maam jatta rek ngeen baal ma man sama waxtaan ci bay du ma taxaw nak ku ma neex dem ñibbi nak ngeen bay mu fi man kenn rek ak tàkk de xam naa ne bàyyi dina ma ni ak Ibrahima Sakho bu ci bay bu ma sañ ñëw kër maam jatta rek ci tëngi mu xadamu bay bàyyi la dafay oo ku ñu wax ñass neka dama oyma alxaaji ibrahima saam kayre kayre kayre kayre dafa daan oo neka dama oyma alxaaji ibrahima saam bu kayre ñëwee daan ne ah mu ne ma ko ah bàyyi ñëw na de mu ne ko mu ne mu nga ci kër ga Pape Ibou Sakho loolu lu ñu dund lu ñu gis la lu ñu màggal ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ñun ñëpp mu uutu ñu fayal ñu bàyyi waaye ñun ñëpp yàlla yàlla uutu fayal ñu ku ci nekk sa ak sa wayjur ndax sa sëy sa ak sa wayjur ba xàllal woon yoon bi doo xam waaye ñoom ñooña ñoo xàlle yoon bi yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla doolu góor gi ay yu bari bari bari bari Oustaz Diouf kii kan la déedéet Ah, keneen ki mooy Imam Assane moom laa la bëgg wax ki Cheikh Tidiane la ki Imam Assane Cissé. Imam mooy sëriñu sang yi bii nag. Ah. bari na lu mu doon liggéey tey man ci sama wàllu baatin ci moom la jóge oh. jóge jaar ci loxom lay saaxoo sama mag mu ci moom parce que moom bu ma dem moom la ko bàyyi di boole. Oh, lu bari lu ma yor tukkuru sax kii moo ko jox lu bari lu ma yor sama kurus kii moo ma ko jox. waaye moo jox la yoo xam ne kenn du ko joxe de. Oh. boo ko xasee bay bay dóor nii. Ah. aka ngay bari xaalis. Oh, yàlla yàlla faj aajo yi tegg tiis yi mu ngi jàkkoor yi saafara jàkkoor yi sutura ay bi jéggal ñu sunuy bakkaar kon bu gudd bi ànd ak jàmm yàlla bu ñuy nangu bi kii ku baax la. ku yiw la ku bëgg a diine la ku bëgg a jàkk la ku bëgg a taalibe la ku baax la jàppoon naa ne su ma ñëwee moo fi fekkul kenn it naa ko fekk ndax bëgg gi mu bëgg a diine sëriñ bi bu ñu yàlla mayee insha allahu taala bu ñu a mayee ba déwén ak jàmm ngay def lii dañ ko préparé beneen préparé bu ëpp bii wax dëgg yàlla man ndey wax dëgg yàlla dinaa si ñe def ñaan dinaa ci am taxawaay beneen bu uuteeg bii nag beneen bu uuteeg bii incha allahu taala Xasan ak Ousseynou sunu ñaari kilifa yi du leen di ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan. may leen wér. man fekkoon ma conférence bi. waaye Cheikh Ibrahima bii kat dafa ko dajalal ci benn kàddu. moom ci kàddoom laa dégg yéen ñaar seen ñaari waxtaan. wallaahi al asim yàlla yàlla fay la. yokk la su su turam. gàttal nga ko lool waaye def ko ci àdduna li ci biir ci ko xam ci ko xam. bal insaan ala nafsihi basira bal insaan ala nafsihi basira loolu mooy la mooy ah moom lañ doon waxtaane ah, nit a gën a xam boppam ci keneen oh. laa ilaa nit moo gën a xam boppam ci keneen man ni ma xamee sama bopp saaf bi bi xamee ma noonu ah am na leneen lu nekk ci man loo xam ne loola ni ma xamee xamal ma sama bopp noola mu teg ci mu ne mu teg ci mu ne ah laa ilaha illallah ba xam sa bopp li nga xamee sa bopp noonu moo lay xamal sa borom xam naa sa ci loolu nga tënk yow wax ne Serigne Touba nee na dama doon yàllaa ma doon ut mm-hmm. ba ma teg mu mu mu mu doxal ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam voilà yàlla yàlla fayal ñu leen yokk sutura si yokk barke bi walaay xat-xat bi la waaye bu la woo loolu dinaa fekk commencement yi waxtaan bi ba mu jeex incha allah wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin wa salaamu aleykum wa rahmatullah léegi damay soog a mën a dem ñu gis اللهم لا فرج إلا فرج فرج عنا كل هم وغم ومن بيده ملكوت مفاتيح الفرج اكفنا شر كل ما يضرنا من دين وإنس وباغي وحسود وادفع عنا بيدك الكلمة إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الله لله